سألت الله رب العرش يبقيني يزيد العمر أعمارا ويحييني لأرفع راية التوحيد والدين أجاهد في سبيل الله يرضيني من الدنيا رضا الرحمن أسعى ثابت الأقدام بيقيني فلا دنيا الورى يوما ستغريني بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الأخيار وصحابته الأبرار وأزواجه الأطهار والتابعين لهم wa man tabi'ahum bi ihsaanin ila yawmi ddin amma baad assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñi ngi sant borom bi subhaanahu wa taala di ko delloo wàccuwaay bi mu yelloo ñuy julli di salmal ci sangu-sang ak waa këram muy sunu yenant muhammad di ñaan borom bi subhaanahu wa taala yàlla bu mu deñ di dotti leer fa moom ak i njabootam aki i sahaaba ci biir loolu mbokk yi ñuy yëkkati kàddunu yoo muy jàmmi yàlla ak xéewalam yërmandeem ak barkeem yàlla bu mu deñ di ko ci mboolee mi mindeefam mbokk yi ñu dellu siwaat ak yéen beneen yoon ci sunu jotaay bii ñuy amal mu nekk yóbbalu jullit bi tey incha allah di tolloog sunu ñeenteeli jotaay ñuy sant borom bi nga xam ne moo tawfiiqal ay jaamam kàttanal leen ba ñu mën koo taxawee alhamdulillah naka noonu ñuy ziyaar di ndokkeel sunu xabiba yi nga xam ne ñoo ñuy topp ci waxtaan bi waaye rawatina nag sunu xabiba yi nga xam ne ñoom la ñu lool ñu ñuy gunge yàlla na borom bi subhaanahu wa taala ñun ñëpp boole ñu nangul mbokk yi ku ñuy topp jamono ji ci sunu jotaay dafay fekk ñi ngi waxtaane tuub waaye tuub gu dëggu tuub gu wér tuub gi nga xam ne mooy tax borom bi subhaanahu wa taala jéggal ay jaamam di wax ne waaye fan la jaar naka lañuy ñuy taxawee ba mën a am tuub googu ni ñuy taxawee ba mën a am tuub googu moom mooy tuub gu dëggu sunu digganteeg sunu boroom imaam ibnul qayim dafay wax mu ne rahimahullah mu ne ida taaba al abdu tawbatan nasuuxan mu ne saadiqatan mu ne xaalisatan mu ne axraqat ma kaana qablaha min assayiat mu ne jaamu yàlla bi bu tuubee tuub gu wér tuub goo xam ne mu ne tuub gu dëggu la mu ne tuubam googu da koy jural mu ne loolu dafay lakk la mu nekkoon di def maanaam la jiitu woon ci moom ci ay bàkkaar la jiitu woon ci ay ñaawteef mu ne ñaawteef yooyu mu ne dafay lakk wa aadat alayhi sawaaba xasanaatihi dañ ko koy delloo bàkkaar ya mu amoon mu soppeeku doon loo xamante ne ay yiw lay doon kon loolu danga ciy jàngee ne tuub bu dëggoo lu am solo la waaye yoolu fay ga borom bi rek moom moo xam na muy toll kon la ci ëpp solo moom mooy lan mooy réccute ak mu doon lu wér ak mu doon loo xamante ne lu dëggu ci jaam bi la bul tayal mukk wala nga naagu mukk ci yërmaande yàlla ak nag nu mu mën a toll borom bi subhaanahu dina la jéggal te borom bi day dafay am mbégte ci jaam bi nga xam ne dafa daw si ñëw ci moom doon koo xam ne dafay tuub dara taxul lu dul mu yëg ne day dafa def bàkkaar te kiy toppe bàkkaar ki ci mën a mbugale ki ci mën a jéggale kooku moom mooy borom bi subhaanahu wa mu doon jëf joo xam ne da koy def waaye mu ànd ak ixlaas moo tax jëlee nañ ci abi hurayrata radiallahu anhu mu wax ne yenent bi sallallahu alayhi wa dafa wax mu ne lallahu ashaddu faraxan mu ne bi tawbati ahadikum min ahadikum bi dallatihi iza wajadaha yenent bi sallallahu alayhi wa mu ne borom bi subhaanahu wa day kuy tar mbégte la dafay am mbégte mbégteem ci kan la ko jëmale mu ne ci jaamam bi nga xam ne dafa tuub daw si jëm ci moom mu ne jaam boobu su koy misaal mu ne jaam bi nga xam ne tey lu foor ci moom lu riche ci moom lu rëy ci moom daf ko réer mu jékki-jékki rek daa di koy gis faj atan mbégte ba muy am mu ne borom bi subhaanahu wa mbégte bi muy am ci jaam bu tuub daw si ci moom mu ne ëpp na loolu moo ko gën a rëy kon ngeen xam ne borom bi subhaanahu wa taala ku yaatu yërmande la waaye ku ubbi ay buntam ci ay mbindeefam la kon dawal nga tuub bul naagu mukk ci yërmande borom bi subhaanahu wa taala bul naagu mukk borom bi yow jaam bi xamoo ab yërmandeem nu mu toll bul naagu mukk ci yërmande yàlla na nga jàpp ne maadaama sa xol mi ngi xëccu jëm ci tuub ba tey yaa ngi mucc yaa ngi am sens ci mucc ci seytaane peeg gim la bëgg a peeg ci gëm loola la ne sa bàkkaar dafa rëy ba borom bi subhaanahu wa taala ko jéggal na nga yëg ne ay pexeem la ak bàkkaar ba nag nu mu mën a toll bul naagu ma ko ci yërmaande yàlla sahaabi bi nga xam ne moom mooy abi muusa abdillahi ibni qays al ashari radiallahu anhu dafa wax mu ne jëlee na ci yenent bi salallahu alayhi wa sallam bi salallahu alayhi sallam di wax mu ne inna allaha taala yabsutu yadahu billeyli mu ne li yatuuba musii'u nnahaar bi salallahu alayhi dafa wax mu ne borom bi subhaanahu wa taala dafay tàllal loxoom ci guddi ngir mu tuub kan mooy tuub mooykatu bëccëg ya moykat bi nga xam ne da doon moy ci bëccëg gi yépp allahumma lakal hamd borom bi subhaanahu day tàllal loxoom guddi ngir mu mën a tuub mu ne wa yabsutu yadahu binnahaar waaye li yatuuba musiiul layl mu ne xatta mu ne xatta tatlua shams mu min magribiha naka noonu itam lay tàllalee loxom bëccëg di may sens bëgg jaamam yi tuub mooy ñi nga xam ne ñoo doon mooy ca guddi mooykat ya nga xam ne ñoo doon mooy guddi noonu la borom bi subhaanahu wa di tàllalaatee loxoom ngir ñu doon ñoo xam ne dañuy tuub dañuy réccu dañu koy jéggalu moom borom bi subhaanahu wa taala mu jéggal leen noonu moom borom bi subhaanahu wa taala lay nekkee ba jant bi di fenkee sawu yaani ba koroog àddina di tukki waaye ndax dangay xaar yow jaamu yàlla bi àddina boo xam ne danga naan sori naa ca comme ni ko ñenn ñi di defee nekk xale naan ah duma julli lan moo tax damay xaar ba nekk mag di ku la ko dig ndax fa koy waxee sax dinga fa jub ñu bari loolu nax na leen ba ñu dem àllaaxira fekk fa seen bopp di laaj kan lañ fi egsi ndax tuuboon nga déedéet allahu akbar bu ko defee réccute ñeel la nga naan bu ma mënoon a delluwaat ca ad <laughs> ca àddina ba mën a tuub ba mën a jéggalu borom bi ndeysaan ngay talab sens boo xam ne dootoo ko amati kon gaawal nga tuub xoolal sens bu rëy bii xoolal yërmaande bi xoolal xéewal bu mag bi nekk sa kanam gaawal li nax ñenn ñi bañu ñàkk sens bum la nax xale laa waaye dama toll sama ndaw am na ñenn sax ñoo xam ne dañoo réer tey réer a laate bu njëkk dangay gis mag yoo xam ne xale bu bëree lu muy julli dañ koy gaafal fekk na ñoom ñoo ay gaaf ñoom ñi lay gaafal ndax ay gaaf weesuwul nga doon koo xamante ni hmm, magum jëmm nga sa xale yëpp nga paase ko ci fo hmm? yow sàggante ñeel na la nga gis xale buy góorgóorlu moom di jaamu yàlla nga naan xale bi dafa ay gaaf yow yaay ki ay gaaf yow mi nga xam ne sa dund yëpp danga ko paase ci mbonte bu ko defee bu ñu kenn nax bu ñu lenn fawee yërmaande borom bi subhaanahu wa taala lu yaatu la te daf ko ubbi ci mboolem ay mbindeefam bul naa ma ko ci yërmaande yàlla kon yow sama xabibati fillah waaye yow sama mbokk mi nga xam ne yaa ñu doon topp ci sunu jotaay bi nga xam ne mooy yóbbalu jullit mu mel ni waxtu bi daf ñu njat ñuy jéggal borom bi subhanahu wa taala luy rëccute luy rëccute luy njuumte waaye di leen jéggalu di yëkkati fii sunu jotaay li ci jub ci borom bi subhanahu wa taala lu ci dëng ci matadiwu doomu aadama la day delsu ci ñun incha allah ñu leen di jox dig daje ba suba ci kàttanu borom bi subhanahu wa taala asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh حب الله يسري في شراييني وأعصاه فيغفر لي ويرزقني ويعطيني سألت الله سألت الله سألت الله رب العرش يبقيني